dañuy wax d'abord inna lillahi wa inna ilayhi raji'un euh, tey bés bu tiis la ci ñun parce que Bécaye euh, suñu xarit la woon àndoon ak sama ministre muy ministre Serigne Mbaye Thiam Serigne Mbaye Thiam def ci éducation nationale presque plus de sept euh, six ans presque sept ans donc Bécaye a été un proche collaborateur di ministre ñu Mbaye Thiam tey ñu ne ànd ak Serigne Mbaye Thiam di liggéey ci cabinet amoon mu amoon taxawaay bu am solo di ko jàppale parce que képp lépp loon équipement scolaire moo ko yore woon Bécaye aussi nekkoon maire mais tey bés bu tiis la dañuy dañuy fàttaliku ni Bécaye liggéeykat la woon ku bëggoon euh, réewam la ku bëggoon respecté bu mu nekkoon maire la donc tey euh, ci turu le ministre Serigne Mbaye Thiam ci turu waa éducation nationale yëpp tey ñu nekk ñu nekk ci ndox mi ak assainissement bi ñu ngi masawu famille bi di masawu euh, waa Ross Béthio du masawu au Sénégal di masawu aussi waa APR parce que fa la bokkoon di woon yëngatu ci politique ci loolu donc euh, tey euh, euh, dañ ñëwoon rek pour fekkee lever du corps bi parce que loolu lañ mënoon loolu ko loolu ko desal parce que Bekay, encore une fois man maa ngi fàttaliku yàggul dara on a on a on a dîné ensemble avec un ami qui venait du Togo Euh, mais ku ku foo ko gis. ku yaatu ku ku baax euh, vraiment ku ku woyof ku woyof ñu yàlla ko yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla yërëm